بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا jërë ngeen jëf mbokk yi alxaaji Mbengue Diop ak Mame Ndokh TV mbokk yi nag loolu bu ngeen ko gisee xam ne mooy daara yi oustaz Lamine Diouf mbokk yi tabaarakallaahu Mansour a ngi noonu ànd ak rakam ja Cheikh Ahmed Tidiane juuf ñu fas yéene lan mooy fas yéene rappelé ñi nga xamante ni ñooy ñi war a jàpp ci daara ndax daara ji seen bàyyi ko fi bàyyiwul mu jóge ci seen maam ñoom nag ñu ànd bëgg koo jëmmal taxawal ko xam naa ko ni ñuy def mooy tabaarakallaahu ñu ñëpp dañuy ànd ubbi suñuy mag déglu ki nga xam ni mooy suñu mag suñu xarit Mansour Diouf nañ ko déglu. El Hadj ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp di leen ziar. di la baalu àq ci koor gi. ñu leen di baalu àq. Euh, imaam laaj bu njëkk bi mooy kan mooy imaam Mansour Diouf. imaam Mansour Diouf de ndonga daara la bu nekk fii ci Tivaouane jëmmee ci xadara Seydi Xaaji Malick bi yeewoo loolu nag macha allah ci ëpp sëriñ Babacar Sy waaye nag ki ko jàngal mooy baayam al oustaz Mouhamed Lamine Diouf mi nga xam ni moo nekkoon fii imaam ratib bu jumaay sëriñ Babacar Sy radiyallahu taala anhu kooku mooy Mansour Diouf. imam <laughs> la béykat ñu jékki ngay doomu daara. Mhm. ñu jékki-jékki gis Tiwaawan lu ñuy woowee Castor daan jaay ay kaye. Mhm. ci digg yooyu. Mhm. ñu jékki-jékki doon la ci dégg. loolu nan nga ci duggee yow. waaw ni ma ci duggee booba dama ne ci daara ji nekk ci daara ji ci sama wetu papa nekk ci ndigalam ci jàng te daara ji di jàngale mu am benn jëmmi jamono ma xool xam ni doomu soxna daal lu dul liggéey waru ko ci laa créé samay activité créé samay këyit. def lépp loo xam ne li commerçant war na ko war a def ci am ay kayit ba nga xam ne bu ëllëgee ku ko fekk ci bërëbam doo ko indil benn complication mu wut sama kayit yi ba mat daal di ubbi lu ñuy wax Kayor Store Kayor Store la ko waral mooy dama doon euh, dama doon yoon ci activité livré administration bi tribunal police fépp laa doon laa livre waaye nag maa ngi accédé woon sama activité ci papeterie ak fourniture de bureau ak fourniture scolaire ak immobilier de bureau ci laa ko accédé woon ba ma xamee ni daal euh, doomu soxna nit daal lay dëgg ci moom mooy liggéey ci loolu laa ci loolu la ñu ma waa Tivaouane gënoon a miine ci sama yëngu-yëngu yu bopp muy Kayor Store. relation ak kër Seydi Hadji sama relation ak Seydi Hadji Malick euh, jiitu na ma sama relation ak Seydi kër Seydi Hadji Malick sama maam Tafsir Abibou juuf mi nga xam ne mooy sama baay moo jur sama baay imaam Mouhamed Lamine Diouf moo fi maase woon ak Seydi Hadji Malick moom la Seydi Hadji Malick fekk si woon waaye moom guddul fan cinquante ans laa naka la dund waaye tabaarakallah mu jaboote ay góor jaboote ay yooyu benn jigéenam ñëw ne ko. yow Habibou Diouf de da bari ay góor mu ne ko damaa bëgg ñëpp nekk ilimaan baatam booba nag yàlla barkeel ko ba fii ci Tiwaawoon Pape Mansour Diouf mi nga xam ne moo jur Cheikh Tidiane Diouf mii nga dem Thiès Hadji Malick Diouf moo jur Mbaye Saint-Ger Tëngéej Alhaji Abdoulaye Diouf Thiès oustaz Alioune Diouf mi ngeen di dégg oustaz Makhtar Diouf oustaz imam Isaaxa Diouf ñëpp na di ay imam maanaam sama maam cinquante ans la dund daanaka waaye doom yu góor yëpp macha allah ay imaam lañu imaam nga nag yooyu passé yamatul ci doom yi dem na nag tey ba ci sët yi sët mi yëpp macha allah ay imaam lañu macha ñu ci bari astafurlah ay imaam lañu tabaarakallahu boo demee Lyon Haji Makhtar Diouf mooy sama taaw papa boo demee en France Lyon imaam la fa boo demee tey Dubaï Serigne Lay Diouf nga xam ne doomu Oustaz Alioune Diouf la imaam la fa tabaarakallahu maanaam ñun cër boobu sunu maam xëy moo ko yéene woon mu tafsir Abibou Diouf waaye defal na ko ko bi ci des mooy wax dëgg yàlla loolu la ñu yàlla cëralee moo tax fi mu nekk ñun ñu xaw a taqrib ci wàllu daara ji taq xaw a taqrib ci wàllu imaam gi maanaam fu ñu dem ñu ñu askanale ñu ko loolu mooy loolu mooy mbir mi. loolu mooy sa relation ak Kër Seydi moo tax man la Kër Seydi Hadj Malick relation boobu nga xam ne sunu maam Tafsir Abibou Diouf amoon na ko ak Seydi Hadj Malick radiyallahu sunu maam Seydi Hadj Malick ndax du ma bëgg ko sàllu ba mu ëpp macha allah relation ba moo wàcc ba fii ci daara ji ku ne yàgg naa dégg Seydi Abdoul Aziz Al Amin fédération association islamique du Sénégal fii la juddoo suñu kër gi ci daara ji la juddoo daara ji nag nekk daara du daara ju bees daara ju yàgg la ku ne xam na ni Pape Moustapha Mbeng mooy papay Tafañang bu mairie bii fii la jànge dalee fekk alxuraan en 1947 Pape Assane Mbeng mii moom ngeen di gis muy frère moom tam kazalika daara ji ñu fi jàngoon tey ay màggat lañu ñii génn nañu àdduna mais mën nañoo xam sosoon daara ji dëgg dëgg dëgg dëgg mooy suñu suñu suñu maam tafsir bu Diouf mais yàggu fi waaye ki ko sos dëgg dëgg bu dundal ko mooy Pape Mansour Diouf Pape Mansour Diouf waaw mooy sama moom moo déedéet tuddee wuñ ma ko mooy mooy Pape Mansour Diouf moom fa tabaarakallah moo sos daara ji mais yàggu ci feebar feebar dikkal ko bi ko feebar doo boobu dikkalee yàlla dogal na sam papa nag ci la ko relevé sam papa bi muy relevé daara ji booba daanaka ay yooyu la. sa imam Mouhamed Lamine Diouf bi daan jiite fii jumaay Serigne Babacar Sy man mooy sama papa. Euh, sa papa ban année la génn àddina. sama papa mi génn àddina le 5 septembre 2006. 2006 ak la ko. ak léegi ba mu demee ak léegi sama papa maanaam keroog ba ñu koy jullee dama taxaw ni leen ci fii ci jumaay Serigne Babacar man maa jël sama kàddu mañ leen kii jullee nañu bari kii tëdd jàngal nañu bari. kii tëdd julli na ay doom ba tàyyi kii tëdd jullee na ay néew sang na ay néew tudd na ay doom tey nag ñi ngi koy ñi ngi koy fay borom tey ñi ngi koy jullee waaye ma leen di xamal ni kii tëdd formé nañu formé nañu ba nga xam ni ñun ñii mu fi bàyyi incha allahu taala lépp loo xam li moom imaam Lamine juuf mii tëdd mi ko doon dund incha allahu taala ñun li ñu fës yéene muy dund loolu incha allahu taala ba ke ñu koy fekki ba mu demee léegi ñun mission booba ñu ngi ci fa tabaarakallahu yaa ngi ci euh, waaye bëgg na lu gën ñoo duggal mhm. ci daara jim fi bàyyi woon mhm. fan la toll mhm. ndax ñaata xale ci wàcc alxuraan ndax dafa am ay ustaas yu fi nekk ñu lay jàngale ñu leen di fay ndax xale yi dañ leen di interne wala dañuy wàcc di ñibbi bëgg nañu xam daal biir daara ji ni muy doxee ndax gis nañu léegi daara ji nekk en chantier. Mhm. ñu nekk ci di defaraat te yooyu noonu yëpp nag ci sa làmmiñ. Mhm. nga leeralal ko askan wi ak ñi lay seetaan dina ci am solo. su ma leen waxee ne bi mu demee léegi mënumaa wax moom li mu liggéey yëpp ci dundam ci ñi fi jàng ak ñi fi jàngale ñi fi ñi fi beru ay professeur ay lu ne tabaarakallah mboolem ko mu jàngaloon tey ñii ay imaam lañu ñii beraat nañu seen daara yi bopp di jàngale loolu kenn xamul nu mu tol mais bi mu fi jugee ak léegi daara ji tabaarakallah dafa dund. te tey jii nag la daara ji gën a dund mooy ba mu fi jógee léegi li fi wàcc ci ay alxuraan mënuñu ko mënuñu koo lim wax dëgg yàlla ba tey ji tabaarakallaahu ñu ngi ci formation boobu mais dañuy jàng alxuraan jàngale fi xam-xam macha allah mën ñu ngi ko ciy dox waaye nag njàng meeg njàngale mi yamalewuñ ko ci ñun sant Juuf rek dañuy xool sax koo xam ne ci wax dëgg yàlla bëgg na jàng bëgg na jàngale ñu intégré ko ci biir daala ji moom tam mu jàppale ñu ci njàng mi ndax ñun li ñu intéressé mooy daala ji dund loolu moo ñu intéressé ca loolu macha allah ñun ñu ngi ci mission daara ji mhm. mission daara ji fi ñu nekk en chantier mooy góor gi al oustaz suñu bàyyi xam Lamine Diouf moo rëddoon chantier bi moo fi rëdd jàkka ji rëdd classe yi rëdd daara ji waaye ñun sam papa la nga xam ni xëccoon na ko ci chantier ñun bi mu demee dañ ko yokk dañ ko yokk ba nga xam ni euh, bloc administratif bi après dañ leen ko won léegi ñu ngi ci chantier boobu mais sa euh, salle de classe yi daanaka dem na ba ci seize classes. mais daara ji chantier bi daara ji pareegul jàkka ji fi mu ne pour le moment moo pare ci ñuy julli tabaarakallah ak majalis bi nga xam ni te ñu ngi ci toog di jàngale macha allah mais jàkka ji fi mu nekk nii commencé nañ cee julli bi macha allah mais chantier bi fi mu nekk nii pareegul parce que dafa xaw a dafa xaw a diis waaye am na ay contribution yoo xam ni duggoon na ci yoo xam ni ñun dañu defar dañu euh, organiser benn comité de pilotage comité de pilotage boobu mënuma leen lim fii mais ku mel ni Cheikh Tidiane Samb ñoom Mor Talla Sy ñoom Mouhamed Amine Dramé ñoom Khalifa Ndiaye euh, maanaam bari nañu daal dañuy def chaque dimanche dañuy réunion pour xool fu chantier daara ji toll waaye man sama xalaatu bopp maa ne ñun woote nañu ñaari yoon lu jiitu ambassadeur Pape Ousmane Seye mi dëkk Tamba nga xam ne suñu boy jur moo ko jàngal mooy léppam tabaarakallaahu mu defaroon ñu benn contribution boo xam ne bi toppatoo na ko boobu mi nekk ambassadeur du Sénégal en Arabie Saoudite indil benn chèque 11 millions chèque 11 millions booba ak ñaari woote yi nga xam ni woote nañ ko fi fu chantier bi egg tey loolaa ko fa eggal bañ ca yeggee tamit nekk ci suñ ñaari suñu woote yooyu ñu woote woon wax dëgg yàlla nit ñi ku am matériel indi nga ko ku am ciment indi nga ko ku am fer indi nga ko ku am xaalis indi nga ko waaye nag man dafa nekk loo xam ne ñun comité de pilotage bi la ñuy jébbal loolu su ma leen expliqué dëgg góor gi oustaz Mouhamed Lamine Diouf moo jëloon chantier bi teg ko ci loxo Cheikh Tidiane Diouf wax dëgg yàlla moo ko tegoon jox du dundam bu ñu defee ne rek man chantier bi dama ko teg ci loxo Cheikh déedéet man bokkul loolu sama relation Cheikh kooku beneen affaire la mais chantier bi nag su su demee nii moom ci boppam moom Cheikh góor gi moo ko dénkoon chantier bi ku dëgg yàlla ci dundam loola it man dama ko wéyal parce que sam papa lépp loo xam ne li bàyyi woon na ko fi buy wéy man dama cay am kàddu ndax ñi ma seqal euh, euh, góor gi muy taam xaaji Mouhamadou Mokhtar Diouf ki nekk Lyon ak xaaji Ousseynou Diouf mi nekk fii ñoom ma jiital ci may doxal ak di ak nu may doxale ba yëpp yëpp aw yoon mais dama fexe ba nga xam ni compte bi li nga xam ne mooy defar daara ji génn dugguma ca ñoom ñoo yor ñoom ñoom xam fu xaalis nekk ñoo xam fu xaalis di génn ñoo xam ni koy ër ñoo xam tam ni ñuy saytoo lu ne fu mu dugg ak la ca des waaw mais ñun noonu lañ ko organiser tabaarakallaahu ba nga xam ni fii mu ne nag actuellement nii bi bu ñu waxantee dëgg moom li ñu amoon ci matériel jeex na li ñu amoon ci xaalis jeex na mais ñu ngi di bëgg def suñuy pexey bopp mm-hmm. incha allahu taala ñu ngi suñuy pexey bopp pour ak euh, suñuy relation bopp lu ñu mën rek ci euh, ku ñu mën a jàppale ci chantier bi pour mu yegg dañ koy def parce que dañu am loo xam ne li xalaat nañ ko am ñoo xam dañuy ñëw di jàng di ñibbi ñu ngi xalaat ci affaire internat mais internat kenn lu ci dugg noonu parce que doomu jàmbur bu la ko doomam indilee moo xam bitim réew lu jógee moo xam ci réew mi lu jógee dafa laaj santeem ak sécuritéem ak setam ak setam yaa may dégg ak maanaam xel mu dal yooyu waaw ak la muy lekk ak la muy naan ak taxawaay bu mat sëkk yooyu ñu dañ ko étudier ba mu mat sëkk ñu doog koo organiser mais ñàkkul nag fi mu nekk ne am na taalibe yoo xam jox nañ ne ñu taalibe yooyu ñu ngi ci biir kër gi yalwaani wuñu parce que sam papa amul taalibe bu mas a yalwaani taali mm. bu mu see yelwaane ken yow yaa am sa copte bopp wala nga bëgg ñam yeneen cin yi dem di yelwaani waaye imaam Lamine Diouf mi ñu jur musul bàyyi taalibeem di yelwaani maanaam bool bi daan nekk bool bu mag moom mooy moom mooy dugal loxoom ñun ñëpp ñooy bokk lox ñooy bokk dugal loxo macha allah moom lo ci yow loolu la ñu yar ñoo daan bokk ak moom añ ñoo daan bokk ak moom reer ñun suñu daa suñu taalibe suñu taalibe dañu yelwaani macha allah lan ngay xaar ci la population de Tivaouane ndax ku wax Daara Oustaz Lamine Diouf lan ngay xaar ci la population ak ñi nga xam ni war nañu mën a seen loxo ci daara ndax damay dégg waxkat bu naan def ci daara def ci jàkk mooy denc lu rafet man banaa masjidan bi nee na ku tabax jàkka yàlla tabaxal ci aljanna jàkka wala daara kenn du ci def muy nuyul bi mooy daara moo jiitu jàkka ndax daara fa la ñuy jànge xam-xam ak fa ñuy jaamoo yàlla te yàlla nee na bu ma kenn jaamu taxamuloo ma la ngay jaamoo yàlla nag da jaar ci daara ji ba xam ko ba pare doog a yàlla moo tax daara moo jiitu jàkka mais ñun macha allah ñaar yëpp la ñu taxawal mais ñun ci loolu la ñuy dox parce que yonent sa sallallahu alayhi wasallam nee na ku gas teen ñàkk de mooy te dugg àjjana nga nga génn àjjana nit ñi di ci xewlu euh, euh, garab gu am fur wi waaye jàkka it wala daara fa ñuy fa nga xam ne fa dañuy jàngee pour jaamu suñu borom kooku yi it tabaarakallah bokk na ci ngënee yi. mais ñi nga xamante ni dañoo nekk ci diaspora bi ak ñi nekk ci dëkk bi bëgg ci jàpp ku ci bëgg a jaar fan ngay jaar pour pour mën a jàpp ci daal. waaw exactement loolu ñun ñu ngi ci parce que man duma ma gis xaalis waaye comité de pilotage bi nga xam ne ñoo ñoo yor loolu am nañu compte banque islamique boo xam ne wax dëgg yàlla képp koo xam ne kii am nga yéene def contribution ci euh, ci ci chantier daara ji foofu nga koy def. bi ci des mooy amati am na comité de pilotage boo xam ne bii bu ñuy joxe xaalis bëgguñu jox ko kenn wala ñaar day mat seede la ngay joxe lu mu tuut tuut tuut tuut tuut ñetti nit ko recevoir la ñeenti nit mais parce que bëgguñu kenn recevoir ko parce que doomu aadama yàlla daf ko nattu mu xaw a mu xaw a bari soxla mais lépp lu ci nit di joxe day am seede moo tax lu ñu fi nangu lu ne bari na lu luñ fiy nangu man am na jamono boo xam ne bii du ma tudd tur parce que su ma tuddee damay bëgg tudd ñëpp kilifa gu mag ci dëkk bi fekk boobu dama dem France ñu ne ma diw ma ngay dem daara ji pour yóbbu fa un million mais dama leen ni nañu nañu former équipe ñii recevoir xaalis bi pour nangu ko parce que man ak ba guddi yooyu maa nga France te mënumaa dagg euh, billet avion daal di ñëw pour ñëw recevoir ko mais dañu organiser ba nga xam ni euh, macha allah mais nag fii ñëpp bu ñu waxantee dëgg ñu ci bari fii ñëpp dugal nañ ci seen loxo tabaarakallah mais nag liggéey bay diis liggéey bay diis diisaay boo xam ne bi wax dëgg yàlla eggale ko du caaxaan. waaye fii mu nekk nii nii exactement bëgg nañu incha allahu taala bu ñu yàlla dafa doon sutura au plus tard fii ak déwén mu yegg wala déwén jéeg ñu commencé actuellement suñu activité carrément macha allah waaw. jërëjëf euh, sëñ Mansour kàddu yi am na solo rafet na. Mm-hmm. Mm-hmm. lan nga bëggoon wax muy loo xam ne laaj ñu la ko te nga bëggoon koo wax ci daara ji beneen bi mooy lan ngay wax nit ñi ci réew mi fi mu toll ak ci feebar bi. waaw li may wax ci actuellement ci réew mi actuellement fii mu toll ci feebar bi. yàlla dafa dogal semaine bii nii exactement yàlla dafa sama tante bu bokk ak sama yaay ndey bàyyi ñu ko soxna Rama Cissé dafa génn àdduna mais barki démb ci ci ñu koy denc sëriñ bi sëriñ Mansour Cissé parce que man foofu foofu la sama côté yaay sama yaay waa piir la sama yaay topp ci xaaj Moustapha Cissé bi génn àdduna ñoo bokk ndey ak baay xalifa bi fa nekk tey sama mook sama yaay bokk ndey ak mais dëj ba fa amoon xalifa bi dafa organiser dëj bi maanaam ca jullee ga dañoo soreel nit ñi armée itam di ko organiser ba ñu denc jee ba ñëw it kenn desatu fa ñëpp la yewi lu dul fukk nit ña nga xam ñoo jàng alxuraan ji ñun tam daara ji mi ngi dund booba léegi fii may waxee yow ni weeru koor gi chaque chaque chaque jour dañuy wàcce kaamil waaye xale yi dañuy sore ay mbagg distance un mètre def macha allah chaque jour dañuy wàcce kaamil guddi gi naafi dañuy naafi rek suñu jàkk ji ci biir kër gi def salaat tarawih ci guddi gi gannaaw bu ñu naafilaa naafila mbooloo gi ba pare de xale yi mokkal alquran dañuy naafila kaamil bi chaque guddi nag ba koor gi commencé ba léegi amul benn guddi guñ ko noppalu tabaarakallaahu mais li ñu intéressé mooy réglement bi nga xam ni ah docteur yi joxe nañ ko état joxe na ko ñun ñu ngi ci loolu dañu dañu daari bari ñu bari seen i ndongo dem nañu mais ñun suñu suñu taalibe yi demuñu ñu ngi des ci biir kër gi ñu leen di surveiller nag keroog ba nga xamee ni décret bi génn ak léegi man damay dox damay génn Cheikh Tidiane Diouf tam day génn day dem waawaaye kër gi ñu ngi fi mais dañuy tëj suñu xam nga kër gi daara ju mag la ah kër goo xam ne gi am na ñeenti buntu kër wala ñee wala juróom waaye Cheikh day taxaw chaque heure bu heure bi jotee ñu nañ tëj bunt yëpp bu xale benn xale dugg bu benn xale génn bu am tam surveillance mër sëkk gel yeeg coton yeeg yooyu tam ñu ko utiliser pour yàlla xaw ñu yàlla aarañ ci feebar bi feebar bi nag feebar bu dikk la ñu ñaan ci yàlla ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yàlla na ko yàlla jeexal ndax feebar la boo xam ne bi lëmb euh, réew mi lëmb na dëkk bi lëmb na àdduna bi waaye yàlla na ko fi yàlla jeexal ba mu jeex tàkk règlement yi nga xam ni docteur yi joxe nañ ko ci ak euh, état nañ ko respecté yàlla yàlla muccal ñu ci loolu moom mooy sunu xalaat ci tabaarakallahu ci feebar bi yàlla ñu ci yàlla muccal. jërëjëf sëñ Mansour wala ñoo dem nag lan moo la gën a metti. Hmm. loo xam ni que doomu daara dina ci daara mën a may rek ci loo xam def noonu la ko mu metti loolu xam doo doo fàtte mu ko ndax jàng. man nag paamu Moussa laaj nga ma lu xóot a <laughs> man daara ji bi mu neexee bi mu nekkee dëgg ñu ñu nekk fi ay ndonga daara. man maa nekkoon koo xam ne kii damaa xawoon a damaa xawoon a garaaw tuuti man ma daan def nit lu métti ba pare <laughs> jooy dem ci góor gi ni ko diw moo ko def ñu dolli ñu dolli ñu dolli ko ay dóor ñooñu ñëpp ne ku ci ne tey sama xarit nga macha allah mais dañ koy toog di ko fàttaliku dafay neex yaa may dégg waaye nag dëgg dëgg dëgg dëgg am na bis boo xam ne bii dama dem ci àll ba taxaan sama mat ba mu jekk taxaan ko ba mu ba mu ba ba sonn ca lool gor xam nga gor dafa métti gor takk sa say ba mu dëgër borom tool ba ñëw nañu du ngeen yóbbu matt mi daal jël matt mi yóbbu këram ma ñëw nag ñu duma ma indiwu fi mat loolu moom métti na ma moom loolu moom wax yàlla moom métti na ma. jërëjëf sëñ Mansour moom ngeen fii ci waxtaane euh, suñu maam Oustaz Lamine ko dajaleeg li ko boole kër Seydi Hadji di ngeen ko gis ci euh, vidéo yi sëñ Mansour lan mooy sa kàddu gu mujj. sama kàddu gu mujj mooy gërëm njaboot Seydi Hadji Malick ñaan yàlla jàppale xalifa bii fi ne yàlla jolli ko kàttan dolli ko wér dolli ko sutura jàppale kii yor kàddoo muy Pape Malick si mi nga xam ne tabaarakallaahu kenn xamu ko ci lenn lu dul sedd kenn xamu ko ci leen lu lu ci yiw recevoir na may wax dëgg yàlla ji waxtaan waxtaan bu yaatoo yaatoo yaatoo macha allah te loolu lu rëy ci ñun la bi ci des mooy ñoom jàppale nañu kër gi xam nañu kër Tafsir Abibu Diouf xam nañu li imam Mansour Diouf daan doxal imam Mansour imam Lamine Diouf lañ fi daan doxal te loolu ñoom dañ ko gën a dëgëral lépp lu ñu yëkkati ci aw yiw ci ak mbaax dañ koy wax ci ñun lépp lu ñu yëkkati ci aw yiw dañ koy def ci ñun loolu tamit wax dëgg yàlla lu fort ci ñun la waaye loolu yëpp nag bu passé nag dëkk bi dafa am fu ñu tegoon imam oustaz Mouhamed Lamine Diouf fonk ko yëg ko faale ko ca loolu dañul ba tey ñun fu dem rek cër boobu la ñuy xoole bu ñaan eh Mouhamed Mansour Diouf wala imam Mansour du ñun moom la sëñ Mansour daan wax ni ku bu ma bu lëkk ma cee ma cee ma cee alom ni ko gërëmee coy ñun lépp lu ñu am tay rek barkeem la macha allah moom oustaz Mouhamed Amine Diouf yàlla na yàlla yokku leeram yokku yërmandeem taas ñu ci barkeem ci barke Seydina Mouhamed sallallahu alayhi wa sallam ñu ñu gërëm nag ñu ñu bokkal daara ji ñu ñu ko seqal Ousmane Diouf mi ngi fi suñu mag la Ousseynou Diouf a ngi fi suñu mag la ba ci élié mii nga xam ni technicien la mais en même temps même jàkk ji fi jiite yaa may dégg mais taxawaay bi na xam ne taxaw ah, tax jàkk ji euh, daara ji am na ko dëgg nag su ma waxee sama dëgg nag wax dëgg yàlla gannaaw taxawaayu ñëpp Cheikh Tidiane juuf la moom tam il faut ma remercier ko ci ba nga xam ne tabaarakallahu man wéetuma ci parce que ci wàllu xalaat ak wàllu lu mën a doon ba jar na sax mu dem jëli sëriñ daara boo xam ne bii dañ koy jàppale ci ci daara ji mu mu mu jàppale ci daara ji fa tabarakallahu rawatina guddi yi ñu toll am nañu mbokk mu baax bu ñu wax Abdou Aziz Thiongaan ñëw na jàppale ñu ci daara ji macha allah ndaale xam-xamam ak wooye fam ak léppam tabarakallahu ak ñeneen ñi nga xam ne tabarakallahu ci daara ji la ñu nekk ñu mel ni oustaz Abdou Aziz Seck tabarakallahu jàmbaar la ci Abdallah imam Abdallah Diouf xam ngeen ko moom moo dafa dem Maroc ci ñi xadra bi yóbbu Maroc pour ñu ci la bokk ñoo ñëpp nag dañoo nekk ci daara ji di ci góorgóorlu Abdou Aziz Seck fi mu ne lépp luy kaamil te ñu yaakaar ko ci daara ji moom mooy moo koy taxawee macha allah du ñu toog nag alxames wala dimanche wala samedi te maye mayewuñ fi mariage sëy ci kër gi fii ci jàkka ji macha allah yooyu nag taxawaa yooyu nag bu amee il faut ñoom tamit ci kàddu yu mujj ñoom la ñuy sant gërëme leen ko yàlla nañu yàlla dolli sutura wax dëgg yàlla wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu